Salut les amis de eSport TV et de Babo Show. Merci encore Gaël de la confiance en nous voler. Merci Louis des Merci de vous aider à abonner. Merci également, Gaël Baïs, des commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager les informations. Inbox sénégalais, il fait pour le Montenegro, 14 régions du Sénégal. Roukhourkhari, hein. Gorgokhari, ñu ngi leen di jaajëfal ñu nekk également ci la l'hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñëw rek jàmm. ñu nekk ci kaso yi ngeen xam ne aussi erreur judiciaire gi ñu ne ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñi dëddu àdduna suñu borom xar leen àjjana fi daw si gars yi yéexee ñu on avance ensemble dans la magie des sportifs de Baba Show. L'actualité on continue gars yi actualité ñu fas yéene waxtaanee ma donc Abara Diouf ak message bi mu lancé jëmale ko également ci équipe nationale bi ak ñoom Sadio Mané et mais aussi wax ci kemb donc Habib Diarra bi nga xam ne dem il a été époustouflant mongook loolu lépp ñu fas yéene ko wasaare ànd ak yéen la laata boobu ay joueurs yi ngeen gis meilleur buteur une équipe nationale L'équipe équipe bi nga xam dañu jël coupe du monde ñi ñooy seen meilleur buteur que le Brésil Neymar Allemagne avec Miroslav Klose hein. donc dit Riva pour l'Italie. Italie Messi pour l'Argentine. Argentine Giroud pour France Suarez pour Uruguay Villa pour également Espagne entre autres li nag gay moy poule li di Euro 2024 bi 24 du côté de l'Allemagne Allemagne mi nekk ci poule Écosse Hongrie Suisse France nek nak également ci poule D Belgique Roumanie Ukraine poule E Turquie ak Portugal c'est si pour lui lui pour F qui n'a que Olivier Giroud gars est du côté de Los Angeles Miami euh, Los Angeles donc le jëm il ah, nga que je daal euh, dafa am li nga xam ne donc Los Angeles FC contrat la am ak 2025 selon Fabio Romano am nañu accord de principe ak joueur bi Vara nak actuellement diggante Angleterre ak Bundesliga dal lañ koy daal tout euh, tudd ah. donc Espagne mom de fi mu ci euh, ñi nga xam destination Vara parce que mom va mooy jouer donc du côté du Real Madrid et que actuellement mom bokkul ci plan au Real qui ah. nga Ivan Toné mom nak ñi di wa Chelsea ak wa Arsenal ñokoy koy mais nak ñom ñaari club yi nee wuñ pour tek 100 millions yi nga xam nak mom la clubum di di Brentford pour daal koy recruter ñu bëgg nañ ko daal moom tamit bëgg na moo nekk euh, li nga xam ne mooy donc euh, choix euh, numéro 2 bu Bayern Munich bu fekkee ne ki nga xam ne mooy donc Xabi Alonso ñëw fa donc De Zerbi bu Brighton daal ne ni daal club yi ko na l'italien Roberto De Zerbi pendant ce temps Ligue 1 nag day changé logo Ligue 1 française bien sûr ah bi lay nekk Ligue 1 Uber Eats nga doon gis gars yi day soppeeku ñoom comme que léegi dañoo signé partenaire ak McDonald's léegi daal bii la ñuy am nii mooy nekk logo bu saison bi donc dans le championnat de euh, France jëm également ci Espagne ak Brésil match bi dem gis nga dañoo témboo ñetti bal ku nga donc Paqueta Mo dans les ultimes Minute de la rencontre, euh, Rodrigo Hendrik Dani Dougal, Rodrigo Dougal, Dani Olmo aussi, euh, Dougal Rodrigo Rodri le qui a aussi Namoy Donkou, euh, qui dit Amara Diouf, la pépite du Sénégal, Amara Diouf, avec son numéro 31, un seul depuis Génération Foot avant Module 10, Gisngenko, mon de message pour lui, c'est un rêve, C'est le rêve pour réaliser ou nous jouer à Grand et le Brit, c'est mon objectif, moi qui a aussi qui dit Abib Diara, Abib il a déroulé le joueur de Strasbourg, qui a ramené gannaaw bi mu demee équipe nationale espoir bu France ñëw na ak Sénégal la meilleure note moom il a eu une note de 7 Sadio Mané am une note de 6,5 Sadio dugal na mais ki nga xam mooy Habib il a été mm, énorme phénoménal pour un début ah donc joué na ci droit bi côté droit jouer et je pense que ne c'est un joueur boo xam ne il peut beaucoup apporter au niveau de l'équipe nationale du Sénégal je pense que ne côté boobu

àndandoo kii bu jëlee pay kii ngeen ex donc aujourd'hui même si cadre football bi noonu la demee mais également gars yi jox rendez-vous ah, ci Baba Show ngeen mën a seetaan li nga xam ne nag mooy donc Amara Diouf mais aussi wax ci ki nga xam ne nag mooy donc Endrick ak ki nga xam ne nag mooy donc Fiorentino Perez li mu wax Endrick vidéo mi ngi ci Baba Show on se donne rendez-vous tout de suite là-bas gars baaxee ci yéen la bonnes ñun la vive le Sénégal bu bees mooy lan toog di dox toog muy dox jeex na léegi liggéey rek gars yi kon di jaajëfal à